di leen ziar lu bari ñëpp ñi nga xam si peut ñoo si seen site bi di ci participer di di waxtaan ci affaire yi ak actualité bi nga xam peut être moo xew tey si jamono muy la maîtresse di yomb di leen bëggee lu baax di wax ne vraiment kontaan nañ ci série bi ni ngeen koy eh, décortiquer di leen eh, bëggee di leen jaajëfal di leen wax ne vraiment àdduna moom nii la Sénégal ñu ñoo ko bokk dañ leen xool ne bu rafetee chaque jour ñu ci ànd di ko liggéey man que li may wax ci série bi mooy que hmm, problème mu kii laay wax quoi problème mu Marème Diagne laay wax quoi ci Marème. Marème dama ko bëgg a corriger tuuti rek loo xam si peut-être série bi seetaan ak ko démb muy eh, benn act bu mu def muy que bi muy menacer Cheikh Diagne ne ko. dinaa topp ba nga sës te parce que du ma la may dara Marème da ngay tey ci bagage yi parce que tey ni nga yaakaar na noonu la Cheikh eh, mel melul noonu parce que Cheikh boo xoolee bi mu amee aawo di di di la di la di la di maanaam di di ànd ak yow booy xool diir bi nga ànd yéen ñëpp bi nga ànd diir bi ànd yéen gisoo ci Cheikh am ci beneen gel kon amal confiance ci Cheikh Cheikh yàlla dafa dogal moom daf la bëgg moom donte bëgg tàkk na laal la dem mu nekk première daamam mais yow Cheikh da laa bëgg da bëgg trop trop trop trop. te bi mu la nim yow ba léegi gisuma kenn ko xam peut être Cheikh contact na la wala Cheikh am naa yow benn liggéey ba ànd ak euh, moom kon kon yow amal confiance ci Cheikh amal confiance ci te tey Cheikh bu guddee wàcc tamit tey amal confiance que ne ci liggéeyam na nekkoon quoi mais bul ko bu mu ñëw nga koy menacé extra yooyu noonu quoi problème mu Jalika Jalika euh, dafa déggul moo tax nit ki bu ñu lay wax del déglu Jalika copine am ni lu ñuy wax ak moom yëpp Jalika ci bàyyiwul xel commune bi wax quoi ba ci xel loolu lay problème mu Jalika quoi sa xarit lu mu nekk sa xarit sa xarit sa xarit bu lay wax ay kaddu yolu déglu kaddu mu lay wax mais dalee kat day feneen di wax ji quoi bu koy naw si wax su ko nangoo déglu loolu la ko problème bi am vraiment asalaamaaleykum naay broda naka nawet si jàmm bu baax a baax ah, maa ngi doon si série bi am na solo trop neex na trop waaye man moom bileem na joor parce que joor xale bi daf ko war a def comme doomam parce que doomam la moom ak yaayam gaay xar ay xarit leen woon kon te warta nekk di disturb xale bi di ko sonal daal di ko bileem parce que xale bi moom xamul dara kii xale la rek waaw kon warut koo nekk di ko sonal loolu yëpp tam war nañ si bàyyi xel bu baax a baax mu xam ne xale bi doomam la doomam la parce que moom ak yaayam xarit leen woon def nañ lu nekk kon warta disturb xale bi na téye xale bi comme doom bu mu jur rek mën daal loolu laa am si lu ma si rek. te meram tamit mu def ndànk rek comme nu ko suñ broda bi nu mu ko waxee noonu rek sa jëkkër su wàccee da nga ko war a may ndox mu naan nga tegal ko mu lekk nga defante moom ndànk bala nga koo laaj yëpp fu mu nekkoon ak yooyu yooyu comme nu mu ko waxee rek loo leblee rek loolu lañ lay fay moo tax ñu ne sooy leble nga leble lu baax rek moom dafa fonne jëkkëram moom dafa demoon si yeneen jigéen ñi wala noonu te fekk demewut fa noonu yëpp loolu daal mooy si suma gis-gis waaye lifin bi drama bi neex na trop série bi neex na trop dañ koy enjoy bu baax a baax fi ñu nekk nii ñu ngi koy déglu nii bu baax a baax dañ ko dee seetaan anytime neex li ngeen di def am na solo trop macha allah jërëjëf ngeen jërë ngeen jëf. waaw maa leen ziar waa maîtresse di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax waa muy série bii passé nii euh, man jooy naa ci trop trop trop trop. wax dëgg yàlla ndax joor moom ku ma bett la sa lu mu doon wootee diggante moom ak Jalika xaj na du dëkk ndax bu doon loolu dëgg la xaj na dina ko mën a téyel doomam mooy mu teew ak mu ñàkk teew yépp dina ko mën a téyel doomam ni mu gën a rafetee mais man bett na ma trop bett na ma trop trop trop trop ni ma gis muy doxalee doomu Jalika yi wax dëgg yàlla lii rek day jiyee jigéen ñu bari boo leen demee bay dem surtout maa nga am doom yu jigéen noo mën a xeex ba yóbbaale leen rek moo gën ndax keneen kiy ñëw mën naa bañ a supporter say doom surtout surtout li joor def nii rek man tuuse na ma trop sa métti naa ko trop film bi boo xale bi xoolee muy koy gëdd dama jooy yàlla xam na ko mënuma xool kuy néewal doole xale ndax xale alalu yàlla la quoi wax dëgg yàlla foofu moom métti na ma trop. waaw ah, asalaamaaleykum ñun ñuy suivre série bi di maîtresse leen siyaar leen jox seen wàccuwaay waaw comme ni commentaire yi wax rek waa série bi passé moom leen dong mooma ci xaw a tuuti mooy ba seex liggéey ba wàcc guddee. waaw maram mënoon na koo dalal antaan la defal ko xam nga jigéen góor loo bëgg ci moom ak dal moo koy réglé maanaam boo ko neexalee rek war ngaa mën a am lu bëri ci moom mais xët-xët euh, fajul dara sa góor ñi en général ñëpp ay bébé leen boo leen neexalee rek yaa leen moom mais boo leen wanee sañ-sañ rek ñu gis seen bopp waaw Euh, loolu daal d'accord ma ci jigéen bu koy def wax dëgg yàlla sa jëkkër bu ñëwee sonn guddee war nga koo defal xam nga jox ko ndox mu naan tàngal ko ndox mu sangu nga jox ko mu lekk waaw boo paree nag lépp loo koy laaj am na fu nga jaar ak moom dina la wax lépp waaw mais nag du question ni mu wàcc rek nga dal ci ko am noonu afale xam nga yaa am gën a xam mais daal série bi daal am na solo bu baax ñu ngi koy suivre macha allah. Euh, salaamaaleykum maa ngi nii kenn ku nekk ci tur ak sant maa ngi seetaan série bi maa leen siyaar bu baax a baax mais man leen rek neex na trop maa ngi leen di félicité bu baax a baax mais benn jàng bu ndaw rek laa am ne leen il faut ñoom ñu nangu ne Sénégal dañoo dagalal awo daganal ñaareel loolu nan ko nangu loolu nan nangu surtout loolu. waaw ah, ne leen nañuy nangu daal nañuy nangu bu baax a baax a baax a baax parce que loolu dafa am solo lool lool ci côté boobu beneen côté biit mooy joor hmm, na xam ne kooku doomam la na bàyyi lu mu koy def loolu baaxut parce que moom ak yaayam ay xarit la kon moom moo tooñ nit ki bu tooñee day nangu ne moom moo tooñ ba pare ci benn part tamit lan la doomam waru koo duggal ci affaire ménage ci affaire mariage am du yëfu xale yëfu mag la sa doom doo ko jël dugg ko si biir néegu sëy di ko ci chantage mu si chantage papa ji loo ko wax mu def ko noonoo gis nga xale loo ko tàmm jikko ji nga ko yore lan la ju nga ko yore jikko jooju lay màggalee te bu koy defee ji ëllëg bu ko rëccu de non non yàqu ko wan ci yow la ko xamee xale dafa war a jël jël bon exemple ci yaayam nu muy sëyee ci kaw yaay ji nu muy sëyee sëy ju baax mais di wax loolu sa doom sa doom na def lii dama sa doom nga wax sa doom mu dem def lii c'est pas normal Lalla moom Lalla moom ci série bi moom Lalla ni ngay def moom baaxul zéro zéro zéro zéro Lalla moom carton rouge. yow camion rouge bu ñu ko doon teg sax yow laal mérite nga ko mais c'est pas possible quand ni ngay sa ménage bi c'est pas bien du tout boo amoon conteneur u fant nekk nga zéro sa bati du feebut na laal non non salaamaaleykum maa ngi leen di ziar leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant euh, man fan yëpp maa ngi bëggoon participer pour waxtaan ci affaire bi mais man joor ànduma ci benn yoon joor xanaa doo jigéen joor jur nga pourtant de nekkoon ci néegu sëy mariage forcé je sais nga bàyyi sa doom foofu pourtant ñu nga la doon woo sa doom mu ngi lay laajte chaque jour de joor lu tax loolu joor pourtant jur na si série bi joor jur na lu tax ni muy def xale bi ah papa man tam biram ànduma ca moom biram xale bi mënu ko yore ana papa yor xale bi am 2 3 ans 4 ans éducation bu war ci moom mënu ko ci def. fan la góor mën a def éducation boobu ci doom surtout doom bu jigéen mënu ko yaay moo war a éducation bu baax ci yaay lay jógee ndax papa day xëy yow ak yaay yéenay des ah si benn biram ànduma moom fenn foofu sama xarit nag Marème Marème man dama ko fonk Marème ni muy gérer ménage am bravo bu ci yokk bu ci wàññi fi nga jàpp foofu la bul xuloo defara ba mu baax xoolal nu ngay jubale nga jubale man awalaa ah, de mi li ngay doxale man neex na ma taxee na maa ñeme ñeme ñaareer macha allah ah, ah, nu ki nu mu tudd sax Lalla moom dafa bàyyi loxoom Lalla dangaa bàyyi sa loxo carrément bàyyi nga sa loxo ëpp na li nga bàyyi sa loxo dafa ëpp Lalla ñeme ko ñun awa yi dañ ko war a ñeme ba mu saf mais ni nga doxalee moom aawa yi daanu nañ rusloo nga aawa yi rusloo nga aawa yi Jalika moom bravo Jalika bravo bu ma sañoon Jalika moom tu dois marier danga dangay marier xale bu góor bi Mariel tu vis ta vie ah, yow sa doom ngeen dund seen dund ngeen nekk ci jàmm happy dund su dund nga bàyyi ñaa côté ñu toog foofu asalaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay euh, di wax ne série bi di daw de di wax euh, ne série bi di daw de res maîtresse non mariée neex na torop torop torop torop mais man daal laalaa ma ci jaaxal xama laalaa ma ci jaaxal parce que bu juddu dara ñaan yàlla boole wërsëg rek la ñu war ko séddoo te képp koo xamante ne am nga doomu baay waroo bañ wujjee man nag dama koy xool ci sama bopp parce que man moom mooy loolu ñetteel laa waaye euh, doy na waar daal lépp kenn mënu koo wax daal doy na waar daal ñi fekk si daal mayñ leen jàmm mayñ leen salaam mais nag dañuy delloowaat lépp ci loxo yàlla xam ne yàlla moo ko santaane lislaam moo ko santaane kon donc nañ dangu ndogalu yàlla te xam ne loolu la yàlla dogal may ñaan la mu ubbil Marème boppam nekk benn seen jëkkër mën na nekk ci jàmm waaw seen jëkk bu ñu amee jàmm seen jëkkër am jàmm mais bu ñu amul jàmm seen jëkkër du am jàmm kon maa ngi koy ñaan lépp lu mu jàppoon mu bàyyi ko topp Marème bien vrai que théâtre la mais tamit ñu ngi yee nit ñi ñu ngi yee nit ñi mais ñu ngi yee donc ñu ngi yee nit ñi ndax lii am ci kër yi rek moom la ñuy joué théâtre donc may ñaan képp koo xam koo xamante ne yaa ngi jëfee comme jëfinu Marème boobu euh, Lalla boobu nga bàyyi ko te xam ne lii dara wujje rek la te fii la yem ci àdduna yeggul àllaaxira wasalaam maa ngi jégalu bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xamante ne ñagas na ci maa ngi jégalu bu baax a baax merci. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu siri seen benn soppe. bu nekk fii Italie maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu série yëpp di rafetlu série yëpp mën naa wax ne ba série bi commencé ba léegi yëpp maa ngi koy seetaan di ci am mbégte bu baax a baax di ci jàng bu baax a baax di am kontaan bu baax mën naa wax ne heure bu ma ñëwee lu mu guddi guddi guddi bala maa tëdd naa ko seetaan waaw kon nag série bi moom neex na ci man lool vraiment damay dem mu yàgg sax sama soxna naan ma yow mii di damay tëdd ba guddi ma jóg di ko seetaan kon nag vraiment am na solo ci man. Mariam Mariam maa ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne léeg rek damay toog mu yàgg may ree ndax chocolat mère bi nga doon lekk chocolat mère Diagne bi nga doon lekk vraiment foofu moom am na fi solo lool. di nuyu Lalla bu baax a baax di ko wax ne ah comme que dafa voyagé na dem defaruwaat bu baax a baax bu dikkee rek xaj na mu baax di wax ne mère Diagne vraiment mm, sa ñaari do sa sa sa ñaari gora la daal na nga ci def jàmm daal li nga jàppoon lu bari na ko bàyyi bul ci dugal affaire sëriñ ndax boo ci dugal affaire sëriñ rek kër gi mën naa dem ba yàqu ci mën naa dem ba indiwaat leneen daal ndax affaire sëriñ moom baaxul ndax lu mel noonu man gis naa ñu ko dund ba daal xam naa ne daal moom metti na loolu lool bala koo dem ba jot a day indi day indi ay ayu baree bari ca mën naa indi sax ak leneen bul ci dugal affaire marabu maire Diagne nga wàññi sa tàngoor bu baax a baax. laala ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen di di wax ne vraiment film bi am na solo lool Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne daal ah nga def na nga yem ci sa ñaari soxna yooyu daal ci jéem leen a seere bu baax a baax ca daanaka boo daan guddee nga jéem koo wàññi moom daal loolu laa ci xam parce que ah, li la laal la mayan Marème du la ko may parce que laal la lim la mayan mooy may na la boo daan dikk rek mu lay nabb nabbee di def yëpp ndekete yaa ngi am ay tojaa ngi yaay def ci su loolu nag Mariam bul ko nangu parce que Mariam sama xarit nga bul ko nangu boo Mariam boo ko teelee napp rek yaakaar naa du duggaat ci leneen kon nag na nga ci góorgóorlu bu baax a baax seex na nga jéem a yem ci sa ñaari jabar yi defar sa kër mu neexal sa kër jàpp sa bopp waaw boo naree guddee sax jaar na nga teel a wàcc waaw bul indee sa bopp benn fitna biram ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di wax ne ah góorgóorlu ci sa joor moom surtout góorgóorlu si sa joor moomu xam naa ne moom fi ñu toll joor rek ngay mujj eh, ca lum la def rek nga xam ne loolu la quoi léegi lum la def nga xam ne loolu la jëlika eh, na nga jéem a jël say doom mu féete ci yow ci nga jéem a sa kooki ngay bëgganteel nga jéem kooku takk ndax kooku daal ni ma gis moo am yërmande ci yow nekk moo am yërmande ci yow Moustapha yooyu jéem a la takk soxna soosu ràkki la xaw ma na ko jéem a takk ndax daal vraiment yéen ñaar seen ànd daal rafet na trop maire maire bi nag maire bi nag li mu def kontaan naa ci lool maire bi nag fi ñu toll tiit tiitin ko tiital man dama cee kontaan lool dana tax euh, rakki xaw a am jàmm bu baax dana tax rakki ndax rakki dafa sonna bu baax dafa sonnoon trop rakki sonnoon na trop da ngay gis maire yi ñi ni finnaale rek seen doom yi xam nga kuy liggéey di gar-gar yi loo indi mu ne la doyut booleeg di la xas ca yaay moom bu lay xas rek ñaare doo xam fan nga koy nettalee ndax boo waxee ñu ne ah waajur la ah, ndax sonnoon nga lool vraiment di teste si guddeeg bëccëg ca loo indi mu jeex kon nag rakki daal yow it ah na nga jéem a jàpp ci Moustapha ca bàyyi paa ba nga xam ne da lay jeer ngir xaalis ok maa ngi leen di sant di leen gërëm di am kontante bu baax a baax ak mbégte vraiment maa ngi koy seetaan bu baax caaw caaw nekk leen ci jàpp. ngi euh, wax ci film bi maîtresse di wax ni filmu démb bi moom macha allah neex na moom trop mais Marème moom hii du yomb mook Cheikh rek du yomb Cheikh da doon yooru waaye yeb na Cheikh de yooru la doon def mais yeb na euh, maa ngi dégg commentaire yi nag am na commentaire yu ma ci déglu yu bari am na yu ma ci déglu maa ngi dégg ñoo xam ne ñu ñu ngi euh, sikk laal la mais laal man sikkuma ko parce que Lalla deful dara Lalla li Cheikh ni ko Cheikh def euh, ku ko fi sa jëkkër defoon tamit ni mu doxalee rek noonu ngay doxalee ni mu doxalee ngay doxalee wala lu ko raw ngay doxalee parce que sa jëkkër bàyyi la fi ah, di doxaani di jël galam di ko indi sa biir néeg saay bu soxlawee galam sa biir néeg lu koy indi ah doomam di ci teg bët loolu tamit gisuma benn jigéen bu ko nangu laala lim doxalee rek noonu la mën a doxalee gisuma benn jigéen bu xam nangu na ku fi sa jëkkër nekkoon di doxaan di jël galam di ko indi sa nit comme ni mu réagir rek noonu ngay réagir laala man daa sikkuma ko Cheikh nag da doon yooru meeyam na bala ngeen xam ne bala ngeen a xam ne Marème moo gën a fiir laala tey Cheikh doon doxaan bëgg a takk ñetteel li ko wax démb du dégg ngeen ko. dégg ngeen ko bu baax moom mayu ko muy doxaan te te te tamit Cheikh tamit euh, secret yëpp Marème da koo xam bi mu koy doxaan tamit daraan gis say bu ko laal la woowee wala bu ko laajee mu ne ko dama guddee wàcceeg affaire yooyu noonu loolu lépp Marème xam ko tamit tey bu liggéeyee ba guddee wàcc tamit day jàpp ne dafay doxaan mais Marème moo gën a fiir ñëpp ba ngeen koo xam mu doon mu takkal ko ñetteel kon gis nga lii euh, laa la def mareem lu ko raw lay def waaw joor nag moom yedd naa ko torop parce que lim sekk ak euh, Jalika ak liñ dund yëpp yëpp yëpp ak nu mu ci demee rek doom ji war na ko cee da ko waru ko cee boole waru cee boole doom ji benn yoon man daal man daal euh, loolu moom kii naa ko ci mere naa ko ci torop sax mere naa ko ci torop waru ko cee boole parce que Jalika loolu léegi la mën a doxalee yor sa xaritu benn bakkan nëppaloo ko dara lim la xamal sa yaay sax xamalu la ko mu dema dema dem bay sëy ak sa jëkkër tamit loolu neexul Jalika noonu rek la mën a doxalee mais nag joor bu mu ci boole doom ji bu mu ci boole doom ji daal waaw euh, xaritu kii boobu nag xaritu mareem bi tamit moom kenn gënu koo saytaane kenn gënu koo saytaane conseillé wu ko leen lu baax amul leen lu baax mu koy conseillé ndax moom chaque jour mu ngi nii affaire yi rek affaire xulu xeex rek moom la koy la koy la koy poussé chaque jour chaque jour ay jaay ma xeex beeg jaay ma xuloo beeg loolu xarit bu baax du ko digal xarit nit ku baax doo ko doo digal loolu sa xarit sa xarit bu dee sëy da koy digal loo xam ne lu baax la fexe nu mu àndee ak bu jëm fexe nu mu àndee ak gorom mais chaque jour mi ngi koy gën di gën di xam chaque jour benn xarit bu baax nag benn xarit bu baax xarit bu baax du doxaleen démb sax dégg ngeen bi muy wax ak Marème Marème nee na ko man de jàmm lay wër moom mooy dafa war a ñëw di ko wax di waxtaan ak moom di ko yee nu mu def mu am ak jàmm wu jëm ak ak ak mais saa bu ñëwee da koy xam moom du benn benn benn xarit bu baax nag xarit bu baax moom du def loolu. la daal moom Lalla moom maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax la moom lii Lalla moom zéro faute noonu rek la mën a def aaw bu fi sa jëkkër takk ñaaree tamit noonu ngay doxalee. waa salaamaaleykum mbokk taal bay maa ngi leen nuyu waa film bi seetaan naa ko mais liñ si wax am na importance torop li ñu suyee neex na mais damay wax rek gujju mareem bi aaw bi mu xajal mareem mu ñëw yaatu parce que defe naa ne jamono jiñ toll ni jigéen ñi bari nañ fi bari boo xamante ne il faut que ñuy nangu ku leen fekk si bu dee ñam rek ñooy ñëw toog pour aaki moo tamit loolu mënul nekk c'est impossible dangay xajal sa moroom ñëw ki fekk si tamit xam ki fekk si keneen ku bëgg a dugg tam mu xajal ko parce que góor am na droit takk quatre fois kon nag su la takkee yow waxul na ne yow si yow rek lay yem kon bul nangu ne si yow rek la war a yem déedéet loolu amul te xale yi tamit aussi ñu leen di génn tamit si biir sëy yi affaire yu jëwee parce que xale day day jàng rek lépp lu mu gis bis bu génnee day yaakaar ne loolu la war a mën a continuer te am na comportement boo xamante ne bu ngeen koy def yéen ya parents yi si biir kër gi xale bi da siy xool bu génnee day foog na loolu la war a def. te déedéet warul def loolu xale danga koy jàngal comportement bu baax bis bu génnee ëllëg xamoo fu mu jëm xamoo ndax seeni jamono ak jamonoom dina doon benn déedéet jàngal ko kon lu baax mais film bi daal en tout cas neex na torop ñoo ngi siy yéete tamit bu baax képp koo xam ne yaa ngi ciy sëyi tamit xoolal ko Marème bëggal jàmm bëggal jàmm te ku góor ki tamit aussi bis booy doxaan na nga wane loo xamante ni rek dañ naan olof nee na lu feeñoon sa ngoro rek lu feeñ ci sëy feeñoon na sa ngoro ga kon bu góor ñuy doxaan tamit nañu bàyyi xel lool si bu baax bul ñàkkal sa bopp fayda si kanamu gel bi bis boo demee ba takk ko doo ko du la mun doo ko mën a ilif mukk te du la respecté benn yoon foo guddee wala nga taxawaal ji wala nga liggéey guddee waay sa day ñaaw njort yaakaar ni naan def si moom noonu ngay def léegi moo tax del am dignité am si sa bopp personnalité bul manqué mukk sa bopp respect parce que nit dafa foor doomu aadama dafa foor góor moo élif jigéen parce que yaa ko muur guddi mu ñëw wàcc ci sa biir nekk kon yaa ko war a élif kër gi benn gi ñoo fiy am te yow yaa koy takk kon da nga war a jël sa responsabilité bul nangu kenn di la mel bi ne. asalaamaaleykum euh, maîtresse groupe maîtresse maa ngi leen di nuyu euh, di leen wax rek euh, vraiment seen série moom neex na neex na trop neex na. waaye nag euh, di félicité bu baax a baax a baax Marème Marème vraiment man moom dama ko bëgg dama ko bëgg ci sama biir xol parce que xam nga lu tax ma bëgg ko sincérité la jaay fii waaw dafa bëgg dafa wone ne bëgg na ba pare jaay sincère daal wone jikkoom di commencement au fin kan vraiment kooku moom man moom man maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaw kanta euh, Jalika tamit di ko ma saw vraiment di wax rek euh, lii tamit luy yee nit ñi la parce que léegi xarit amul waa koo jël euh, daal di koy taf sa wet bu baax a baax a baax moom moo lay gën a mën a wor waaye nag am na nag am na tamit ñoo xam ne ñoom ñu ngi fidèle ba léegi ndax boo xoolee xaritu Marème bi vraiment moom mu ngi ko jàpp te bàyyiwul benn yoon waaw nit nag euh, ah, des fois tamit dama naan ci chance bi la ci chance bi la ndax am na ñoo xam ne ñu bari ñuy dund loolu waaw man de yaakaaruma ci xarit man moom yaakaaruma ci xarit dara waaw quant à Lalla tamit euh, rôle bi mu joué tamit am na jigéen ñoo xam ne noonu lañuy dundee mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy toog man de sama jëkkër du doxaan sama jëkkër du def nangam sama jëkkër du def lii ñoom nag di yëf yi di ñëw rek mu bett leen ba ñu dof waaye man la ma defe ne jigéen ñi léegi dañoo war a màndu ci loolu waaw sa jëkkër bu la wonul loolu daal jàppal ne wonu ko mais sama jëkkër du def nàngam nga koy nga toog di ko bàkkoo di ko waat bés boo gisee leneen lu dul loolu rek da ngay daal di dof te loolu man damaa defe ne jaratu ko nit ñi léegi dañoo war a moytu bu baax a baax surtout jigéen ñi dañoo war a moytu loolu bu baax a baax xamal ne daal sa bëgg nga ko wóolu nga ko jeex na tàkk man de noonu laay dundee waaw mais leneen li ci ginnaaw moom dama ko dul sax lijjanti benn yoon ndax damay bañ dara bett ma voilà kon nag euh, noonu la daal film bi daal moo ngi noonu ñëpp ñu ñëpp jàngat nañ ci janq jeeg jeeg ñeeg maire goro yi ñëpp ci biir kër yi en tout cas jàngat nañ ci goro goro bi tamit seen goro bi tamit noonu la waaw ah, am na ñoo xamante ni <clears throat> goro yoo xam ne vraiment ñoom euh, dañuy daal di yemale mais dafa am ñoo xam ne ñoom intérêt la ñuy xool te man gis naa ne moom xëy na bëgg na euh, lal la mais moom intérêt am la jiital waaw man damaa defe ne moom dafa war a bëgg njëkk bëgg comme bëgg na doomam dafa war a bëggale doomam ba pare daal di xelal mareem tamit ndax xale bu sëy la te nangu na tey da day day déglu waaw dafay déglu kon na ah, man dama defe ne affaire bi daal pour yee nit ñi rek la pour yee nit ñi lu nekk ngi ci comme ñoom niñ ko waxee bi ñu paree ñoom wax nañu ne euh, pour yee nit ñi la vraiment merci beaucoup euh, nit ñi gën a bàyyi xel bu baax a baax ci lu ñuy def waaw da cee da cee am solo daal. da am solo ok merci beaucoup en tout cas félicité naa ñëpp ñëpp ñëpp ku ku ku fi joué rôle rek euh, vraiment affaire yi daal jàll na daal jàll na jàll na jàll na ñëpp daal mënuma lim ñëpp ndax su ma waxee ñëpp kon dama fi yàggee audio bi day gudd torop mais ñëpp daal seen kii moom apprécié naa ko torop daal apprécié naa ko ndax jàngat naa ci lu bari daal man jàngat naa ci lu baree bari ok merci beaucoup di leen félicité yéen ñëpp ndax wéetal ngeen ci nit ñi ñun dañoo sori nag dañoo sori Sénégal mais dañ ko doon suivre à tout moment kee nekk leen ci jàmm ju bare bare bari te bonne continuation en tout cas merci beaucoup bye asalaamaaleykum naa leen ku si nekk turam ak santam waaw man moom pare euh, série bi extraordinaire neex na ma trop trop dama koy suivre ah fu mu toll damay yàq ci sax vendredi jot wala lundi parce que am na lu ma si neex trop trop xam nga parce que si cadre jigéen ñi lay wax si cadre jigéen ñi lay njëkk wax parce que marem dafa jaay dafa am place am waaye war na mën a am benn dignité boo xam ne war ko mën a wan laal la ngay ñu nekk si kër gi ñoom ñaar ñu nekk ensemble mu rafet trop ngay dégg deuxièmement beneen ci deuxième jabar jabar kii. Euh, elle s'appelle comment euh, petit frère Cheikh bi waaw kooku deuxième jabar bi sincèrement parlé elle est méchante de trop si xale xale kenn dund ak moom ni xale soo ko fekkee si kër am na loo mën a comporter ak moom ndaxtaana mu jàppee kon yaayam mu dem ba jàppee la yaayam waaw loolu moom sincèrement parlé côté bu fekkee mun na changer rôle am mu changer quoi indiwaat beneen comportement bu baax parce loolu mooy defar àdduna waaw loolu amul bu doon wax jërëjëf. allo asalaamaaleykum euh, waaw Marodi production waaw ñu ngi leen di nuyu di leen jaar voilà mhm, di jox suñu contribution par rapport à ce qui se passe waaw moom mu def moom ànd naa ci de waaw lépp loo gisee ci commencement bi la ko comme waa ji ni la ko xamee dafay attirer day attirer attention rek waa ji xam quoi waaw bi kese daf ko bañ quoi mais nit ki nag buux bi waxu dëgg ko mais ni ko foofu di neexal di neexal bu yegg rek xam nga góor moom daal gis góor moom kii la waaw moom xam na ko bu baax a baax bëgg na ko te wan na ko mbëggeelam te wax na ko ci lépp nag nee naa man amul caaxaan et puis nit da ngay dëggu boo bëggee da ngay dëggu bu ragal a ñàkk ñu ne xoolal mun naa la jooy ñaari fan ñetti fan après ma fàtte ko waaw loolu mooy nit nit da wax dëgg mais nekk di raay di raay leneen ay sa ay xool ay aljana ak aljana boobu gëmu ko bu gëmoon kon lu indi lu mu indil koy gérer quoi. loolu la wax du ko ñu ne balaa nga xam sa jikko soxna nga am ñaareel donc maram fu mu tee foofu la waaw dafa tee bu mu dëgër jaajëf waay. salaamaaleykum maa ngi wax ci maîtresse non mariée waaw di wax euh, laal la moom sama fan si dama ko bëgg maa ko bëgg fii ndax xam naa ne ñun sama moromu aaw moo tax mais macha allah saykat la te muñkat la te jàmbaar la waaw Marème Issi tamit. dama ko blâmer dama koy blâmer tuuti rek parce que bañ koy fekk si dafa neexoon lool bañ ñu dem di bàyyi jabar di ko fekk dafa neexoon kon tey du dema dema dem ba Cheikh takk ko mu di ko perturber di ko jaxasee comprendre nga waaw bàyyi si ak boppam daal bu dee wóolu na boppam tamit man daal loolu laa amoon ci ma doon wax <laughs> ok merci salaamaaleykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV ni ngi leen ziar di wax sunu xalaat ci euh, maîtresse d'une femme mariée euh, premièrement joor joor eh, moom li muy eh, li muy joué ci digganteem ak eh, Amina moom metti na ma trop parce que moom bu nekkoon xarit gi muy gi muy woote ci Jalika dëgg la ci moom kon doomam bi dina ko ko toppatool na mu waree mais pas mi doxalee nii mi doxalee nii deuxièmement Marème moom Euh, mere naa ko trop ndax moom bi mu bi mu xaree ba sëy dafa waroon a euh, jàppale Cheikh Diagne bu baax a baax mais ni mu koy taxawoo nii nii nii nii nii nii moom neexuma dara dara dara loolu laa amoon lu ma si wax jërë ngeen jëf. allo asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant yéex naa dugg nag mais maîtresse d'un homme moom laal la moom. dama xamul lu muy ragal ci wujje xaritu ñëpp la woon waaye léegi nekkatul xaritu kenn seex seex seex seex seex lu muy ragal ci wujje takkal nañ ko jabar kay na wujje na ndax jëkkëram bëgg ko moom kese bëgg na keneen kay na wujje te gëm yàlla ak yonent bi waaye di rey nit ñi rek di rey nit ñi nu ma ni yeg nu ma ni yeg nu ma xaritu jalika bi moom joor moom baaxut yow yaa ngi war yaa ngi war sa meilleur sa meilleure copine ba pare wor ko ah dem sey jëkkëram ba pare nga war a jël doomam uuf ko di xeelu doomam di ko def lu nekk naan ko boo lekkul nga jóg dem sa yoon boobu foofu moom baaxut ah, am na lu ma fàtte woon tamit yaayu cheikh tamit yaayu cheikh na yemale na yemale jali na yemale lalla ak mareem yaayu cheikh moom kenn xamut ki mu bëgg xanaa mooy goro yooyu nga xam ne xaalis rek lañu bëgg ku leen jox rek yaa leen moom bi fa Jalika nekkee da ko sonaloon na sonal sonal ba Jalika génn na kër ga Marème ñëw na même chose mu nekk di ko wax lu nekk moom moom dafa war a def fi goro rek parce que lii muy def nii tamit nit ñi dañ koy seetaan àddina bi yëpp koy seetaan xam nga goro du mel noonu nit ñi am na ñoo xamante ne dinañ ci jàng amante ne ñoo xamante ne tamit mooy loolu waaw goro moom day yemale rek yemaleel njaboot gi ñu doon benn noonu la war def waaye bul wax ne fii laa far ba àddina bi yëpp xam ne fii nga far te tegoo ko fenn te duñ la may nga jël bu ko mareem indi lee day jël bu ko ku ko may mu jël ah, loolu moom baaxul de war na foofu moom war nañ changer système boobu moom mu xaw a tane tuuti. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV mbaa yeneen ci jàmm di ñaanak ñaan ak ñaanal gudd fan ak wér. Eh, di taaxirlu rekk ci waxtu bi waaw waxtu bi moom jot na fu mu ne nii moom waruñoo sore écran bi waaw di leen ñaanal jàmm waaw di ne nag Marème nag na fexe tey mu annoncé Cheikh ni dafa ëmb waaw loolu moom yittewu naa ko lool lool lool <laughs> waaw lan la la sama xarit benn bakkan bëgg naa boo ñëwee tey xoolal jëlal benn benn tissu bu baax tëj la meñu Marème dama la ko ñaan rek boo jógee ci comme ci ci ci ci voyage bi seetaloo rafet ci li nga indi pour jaay nga yëkkati may ko Marème su la neexee sa defal moom ak Cheikh ñu bokk ñu niiroo gis nga ñi am foo leen wàccee ndax ñu xam ne mbir mi du du du du cëfër cëfër waaw loolu laa loolu laa loolu laa loolu laa laa lay laa lay conseil daal sama xarit waaw sama goro goro goro Sénégal ñëpp. góoru Sénégal yi ñu lay ñi lay ñaan nag xoolal gënal ci siw xale yi gën ci gën ci gën ci waaw fii lépp nickel lépp nickel waaw lan la mbir mee ko mbir mee song rek mais lala du du nitu nitu sëriñtu waaw lan la boo ko xool sa di nga xam ni solo la xam ak defar waaw dafa nag bu jënti ko ko xamul xamoo ko mais boo ko xamee bu yëg sa dina xaw a bu tuuti mais après dina remonté wu waaw bu soobee yàlla léppay baax incha allah yow jàlli ka yow ah sa kuuful bi nag na gaaw nag papa ji nekk xoolal sa papa xoolal na na naxanteeg waa ji waa ji génnee génnee groupe bi nu mu gën a gaawee waaw bu nañu nga heure wax fa dëgg yàlla jàlli ka yow lépp dafa métti ci yow ñu lay ñaanal rek waa ji lu nit ñi seen xel si sax yàlla bu am yàlla bu mu am. yow ko waa ji na ngeen mel ni mburu ak lem yal na ñu yal ngeen mel ni soow ak suukar yal na ko yàlla def kontaan nañu torop merci beaucoup